asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen bokki jullit yi yéen bokki taalibe yi yéen ñiy bàyyi xel eh, seen télévision Xasaa'id TV indil nañ leen émission bu bees bu ñu tuddee Qurratul Ayni Qurratul Ayni nag émission la boo xam ne dafay jàngat di leeral lépp loo xamante ni soxlaal na jullit bi ci diineem mooy li ko tàmbalee ci liimaan ak lislaam ak lixsaan ñu gën ko xam ci tawxiid ak fiq ak tasawuf seen émission ay ayni nag ñu koy amal dibéer di dale juróom-ñeenti waxtu jàpp fukki waxtu muy vingt et une heures jàpp vingt deux heures ko tegaat altine talaata àllarba ci même waxtu wi seen mbokkum taalibe mu ñu wax omarloo moo koy ànd ak yéen wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.